yàgg nañu ànd waaye boo xiifee ànd boobee kaso ba lay ñeeli jee ñoom ñaar ñii di Barthélémy Dias ak kii di Ousmane Sonko ginnaaw Pape Alé bi mu génnee def benn laayi fam mi ngi wax ne kii di Macky Sall li mu naral ñaar ñi mooy ndëgg sërëx gu rëy la leen laal te it bu nu xefee buñ ca tegee seen tànk ci biir kaso ba leen jëm Barthélémy Dias ak kii di euh, Ousmane Sonko ñoom ñaar ñi ne Macky mi ngi ci seen kaw di leen pexeel pexe mu rëy rëy rëy kii nga xam ne di Pape Alé Niang ginnaaw bi mu doon def benn laayi fam nee na Macky Sall bëggul dara lu fi mu toll nii tëj Ousmane Sonko te mi ngi ci pexe yooyu kon nag mi ngi dànkaafu moom kii di Ousmane Sonko mu gën a bàyyi xel ni ko dar gën a bàyyi xel it askanu Sénégal ndax kii di Macky Sall lim leen naral ñoom ñaari àndandoo yi te yàgg nañ leen a gis ñuy ànd nee na lim leen naral moo di tëj leen ci kaso bi rat dootuñu génn bay mën a tee wax lenn loolu nag di mbir moo xamante ne bi mu doy waar la waaye it ñu ngi ci kii nga xamante ne bii mooy Pape benn journaliste fii ci réew mi di réewum Sénégal moom nag mi ngi gën di araftu ki nga xamante ne bii mooy Ousmane Sonko ngir mu gën a bàyyi xel bu baax a baax a baax xew-xew bii nga xamante ne bii nar naa am te ki fi nar a indi du kenn ku dut Macky Sall mi nga xamee ne moo jiitee réewum réew mi di réewum Sénégal.